yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. laata loolu it ñuy nuyu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mi nga xam ne mooy kilifa ak yoonu murit di ko ndokkeel ci weeru koor wi di ndokkeel mboolem jullit ñëpp. di leen nuyu yéen waa daayira bi daayira Moukhaddamatoul Khidma di leen ziar di leen ndokkeel ci weeru koor bi di rafetlu seenu liggéey eh, di wax ni tey bis bi ngeen ñu woo ci liggéey bi ñu ñëw teew nii rek ak mbooloo waaye teewu liggéey bi naka jekk ñu ngi ci woon mu doon lu rëy nag ci ñun ñu ciy sant bu baax a baax a baax mën nañoo wax ne maanaam daayira bi daanaka eh, ñëpp ñëw nañ ndax bànqaas yi ko ŋànk yëpp eh, seeni njiit ñi ngi fi. ki jiite wàllu organisation mi ngi fi eh, ki yor wàllu moomeel bi lépp ci biir daayira bi mi ngi fi ñi yor wàllu jokko bi ci biti muy relation extérieure ñi ngi fi eh, man mii di wax maa yor wàllu culture bi eh, ñi ngi fi ca gis ngeen tamit njiitul daayira bi moom rek bu ñëwoon sax daanaka teewaale na fi ñëpp ak ñeneen ñu bari ñi ngi fowoon ci biir jotaay bi ndax dafa rëy ci ñun cër la boo xamante ni dafa fekk jëflante bi nekk fi ngeen ñëwaat gën koo dëgëralaat ñuy wax ni diggante ñaari daayira bi ñaari daayira yi euh, seenub liggéey dafa nekk ci benn tool tool bi moo yaatu kenn ku ne ñu tobbil ko ci aw sas rek daayira muqaddamatul xidma dañ koo tobbil aw sas ci biir toolu bi toolu yu yoonu murit lislaam bi aj ko ci jumaa jeeg yu aju ci yeneen yu ci aju daayira rawdu rayaaxin ñu tobbil ko aw tool ci biir liggéey bi yoonu murit liggéey bi lislaam bi lépp lu jëm ci xam-xam ak lu koy dundal ak lu koy tasaare loolu nag bu fekkee ne dafa def dafa demee noonu te xam ni xam-xam euh, mooy cosaanu lépp lu baax ci àdduna euh, fu dox fu nekk euh, xam-xam moo ko doxal nga xam ne mënut a ñàkk loolu nag moo tax buñ demee bay liggéey ci lu aju ci xam-xam faaw ñaari daayira yi dañuy lënkaloo ndax it xam dafa toon moom it tool bu yaatu boo xamante ni kenn nit wala ñenn rek mënuñ koo def waaye mbooloo ñoo koy defandoo di ko di di ci liggéey Euh, léegi nag euh, liggéey bi ànd bi euh, du ci weeru koor wi rek dëgg la weeru koor wi moo ci gën a fes xëy na ndax balaa muy ñëw ñoom waa daayira Moukhaddamatoul Khidma bu ñuy waajal seen seen bu ñuy waajal seen programme mu koor dañu ciy woo ñu dem ànd ak ñoom toog def li ñuy wax évaluation maanaam saytu année at mi weesu naka la tëddee woon ak nekk ñoom ñoo ma koy ànd ndax ñoom ñoo ñu ciy woo ñu wax ca suñuy xalaat. su ko defee li mat a jooyante ñu jooyante ko li mat a gën a dëgëral ñu gën a ko bu ñu noppee ñu doora xalaat ci programme bi at mi dëgmal loolu ba ren jii may wax rek euh, man mi yàlla dogal na bokkoon naa ci ñi teewaloon daayira bi foofa ci saytu boobu kon ñoom xam nga ni euh, seen mbir doonut xaar ba mbir mi sotti ñu wooñu ci waaye fañ koy nosee dañuy ciy woo ñu ànd ci ànd kook ñoom ci xalaat bi ci loolu xam nañ rafetal la rek waaye Eh, ñoom mën nañ ko bu baax a baax sax mën nañ ko bu baax a baax kon bu ñu ci woo dañuy cëral yéene ñu tëyaa ba rafetal ànd bi rek xam ne tool bi benn ya eh, sas yiñ topp bi rek moo wuute waaye eh, loolu du ci loolu loolu ñoom mën nañ ko bu baax a baax waaye ñu nit ci sunub liggéey bàyyiwuñ leen ndax ñu nit saa boo xamante ni màggal gi mi ngi jub si te sunub liggéey fi lay gën a fees ci lu ci jëm mboolem émission yi ñuy def yëpp ñoom dañ leen ciy woo ñu ñëw di ñu ci jàppale di def ay émission di ñu euh, di ñu euh, saytul tamit ay émission nga xam ne ñooy bokk euh, di ci di ci di ci xalaat bokk di ci liggéey nga xam ne kon mbir mi amul mbiru frontière amul mbiru dara mbiru rek organisation kese la ñii dañoo nekke fii ñi nekke fii ñu bokk ku ñuy liggéeyal bokk ci liñ koy liggéeyale xaw a wuute rek ay jumtukaay tuuti loolu rek la waaye yéene yi benn la mbooloo mi benn la tur yi moo wuute ak lenn ci jumtukaayu liggéey yi rek moo xaw a wuute waaye yéene ji benn la moo tax daanaka euh, ñoo bokk lu ñuy def ñoom it fuñ toll di ñu ci di ñu ci woo euh, ndax xam nañ ni ci wàll googu moo gën a fës ci sunu liggéey su ko defee ñu leen ci sant bu baax a baax te loolu lépp rafetal la rek ndax euh, daanaka ñu ci bari moom la ñuy liggéeyee mën nañ ko xam nañ ko tamit waaye boo ci woo ñeneen di leen cëral dafa doon ab cër booy def rek te cër teraange kenn du ko delloo moo tax ñu ñu koy kii ñu leen ciy sant bu baax a baax nag seen liggéey ko rafetlu nag bu baax a baax lu lu jiitu tey ak tey ci liggéey bi ci taxawaay bi ci cëral bi ci ci ci ci yaatal gi ñu koy ñu leen di sant bu baax a baax di rafetlu seen liggéey bu baax a baax ci wàllu organisation bi ak ñeme responsabilité bi ñoom ci seen bopp ni ñuy jëlee seen i matuwaay jël seen responsabilité ci saa bu ko waxtu wi laajee loolu it lu baax la ci mbooloo mu àndi di liggéey ànd tënku ci kàddu ànd tënku ci doxeen loolu seetlu nañ ko ci ñoom ñu koy rafetlu bu baax a baax di leen ci yoon dollee ndokkeel di leen ci dollee sant di leen ci dollee soññ di ko jaarale nag ci seen kilifa Serigne Afia Bousso mi nga xam ne moo jiite daayira Muqaddamatul Xidma lii may wax nag ma koy wax ci turu waa daayira bépp ndax ñoom ñoo kàddu gi jox ma rek ma di ko wax ci turu sëñ Ahmad Badawi mi nga xam ne moo jiite daayira bi ak mboolem ñi ngànk bànqaas yi eh, lënkale daayira bi yëpp ñuy sant bu baax a baax di ñaan yàlla ñu fekk waat ko eh, déwén ak jàmm